Touba Bagdad distribution maanaam képp koo xam ne si ni da ngaa tabax sa kër ba mu pare nga jëm ci wàllu décoration lumière lépp disponible na waaw boo ñëwee dinañ la accueillir dalal la maanaam jaay la ay prix yu abordable prix yoo xam ne si nii maanaam fenn dañuy jaay en gros dañuy jaay détail en même temps ci wàllu lumière yi bu fekkee ne da am sa salon salon sa salon nu mën a toll li boo fa bëgg rek incha allah boo ñëwee fi da ko am maanaam décoration salon bi yëpp am na muy wàllu spot nga ñëw ci lumière yi golob lampe chambre lampe euh, espace familial lamp couloir yooyu yëpp am na maanaam ay applique led applique décoration applique décoration am na ay golob led buy tàkk trois couleurs maanaam golob yu rafet daal maanaam daal moom ay applique ak ay applique yoo xam ne si nii macha allah. Euh, bu fekkee ci wàllu solaire bi la dañuy yëngu ci solaire bu baax baax solaire am nañ ay panneau solaire ñu ko dalee ci cent ba trois cent watt batterie ñu ko dalee ci sept ampères ba deux cent ampères ci ay marque originale yooyu yëpp am nañ ay batterie originale am nañ ay frigo solaire am nañ ay euh, chauffe-eau solaire congélateur solaire am nañ ay ventilateur solaire clim solaire yooyu yëpp am nañ fer fer à base solaire sax am na fi maanaam tamit euh, am nañ ay lanterne publique solaire yi lanterne publique yi maanaam képp xam ne si ni da am sa hangar te sa courant ko fa maanaam nga bëgg fa éclairage boo ñëwee incha allah am na fii nii marque yu baax ay original am nañ ay projecteur lépp loo bëgg leeral rek boo ñëwee fii nii incha allah da ko am ci wàllu solaire maanaam am na ay lentre lanterne solaire li ko dalee ci cinquante watt ba cent cinquante watt yooyu yëpp am na am na tamit euh, projecteur solaire yi projecteur solaire yi lu ko delee ci diis ba cent cinquante am na fi waaw yooyu yëpp ci yëpp cent pour cent solaire la doo laal benn yoon courant guddee mu tàkk ba setee mu fay am daal noflaay la daal. am nañ tamit ay régulateur solaire régulateur MPPT ay pm PMW am nañ ay chauffe-eau solaire en même temps maanaam chauffe yi li ko tàmbalee cinquante litres ba trois cent litres boo ñëwee incha allah boo ñëwee fii nii ci TBD di nga ko fi am waaw. am nañ tamit euh, am nañ ay pompe solaire en même temps pompe boo bëgg dimension boo bëgg boo ñëwee rek incha allah dina jàppandi fii nii ci TBD Touba Bagdad distribution wàllu plomberie sanitaire am na fi sanitaire loo bëgg siège anglais yaa ngi fi lavabo yi siège turc yëpp am na fi seetu yi seet lavabo seet ledd yeeg lépp incha allah loo ngeen soxla rek bi ngeen ñëwee fii nii jàppandi na am nañ tamit carrelage. carrelage ba moom tàndal sa bu la neex la rafet ba jéggib dayoo. dañuy def carrelage képp koo xam ne si ni da ngaa tabax sa kër ba pare bëgg ay carreaux yu rafet boo ñëwee fii dañ ko am dimension yi yëpp am na fi. ñun ku ñu soxla ah, mën ngaa woote ci numéro yi nii ci suuf sunu adresse mi ngi nekk fii Dakar rue Félix en face euh, pont pompier bi station Puma bi mooy mbedd bi nga xam ne si nii moo jëm Petersen. mooy kaar yi jëm Petersen ci bunt place bi la ñuy taxaw maam képp koo xam ne si nii tamit dangay ngay ubbi magasin nga soxla ay matériel boo ñëwee fii incha allah dinañ la taxaw danañ la jaay ay prix yoo xam ne si nii maanaam da danga da nga ko mën a jaayaat ay prix abordable ay prix en gros. réseau Thiès laa jógee pour jënd matériel fii. ah non damay jënd pour jaayaat léegi avant may ñëw fii nag mm, dugg naa Dakar fu bëri pour xool ay prix mais fii prix yi ma defal moom aw ma ko fenn. mais lu baax lay jaay bagage yu baax aussi lampe yi aussi mooy loolu. ma mark yi daal marque yu baax la wax dëgg naa si ay bagages yu am qualité wax dëgg naa si yàlla moom la jaay. man jënd naa fi pour sport laa fi jënd si sport mooy comme yi maa am yi ak lampe miroir yi ak euh, lustre ak ay lavabo ay chaise anglaise ak ay seetu salle de bain ay assoir salle de bain waaw lu jëm ci assoir bâtiment daal moom. waaw fii la yu xeewal la wax dëgg weer naa marché bi marché bi moom miin naa ko xam nga ne ay 2011 ba léegi ku koy ñëw ci marché bi moom miin nga ko mais gis lu yomb rek moo tax chaque jour may ñëw ci place am waaw surtout surtout ñi ubbi magasin pour jaayaat fii la ñi nga xam ne tamit dañuy tabax pour bëgg seen kër yanji fii la mbokku jaaykat yëpp ñuy ñëw di jënd ci falu fal di leen jaayaat ñuy jaayaat électricien yeeg ñëpp it maa ngi leen di wax ñu ñëw di jënd si xam ne fii moom xew la ngi fii dañuy jaay la détail képp ku soxla matériel daal boo ñëwee fii ci prix détail danañ la jaay dañuy livrer tamit à domicile képp koo xam ne si nii tamit euh, yaa ngi soxla nga matériel boo ñu ko commandé mën nañ la ko livrer ba sa kër Touba Bagdad distribution dafa ñëw yombal lépp askan wi